alal jiin bismillaay ma dee ci door maam góor njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokku téléspectateurs yi topp Dakaractu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci mu mel ni ki nag tey ñu ngi kër ci benn sampion yi ci sampion yi parcelles yi muy Garga numéro de bu jàmbaar Wrestling Academy ah wala bu jàmbaar boog maa ngi nuyu waa jàmbaar yëpp ndawatina père ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ba ak doomu Mansour ba tey ñu seet si Garga parce que nag Karim bërki démb kalaaf bi xam ne moom la Gaston production initié waat première journée bi moom dafa daf ci bëre yàlla dogal mu bëre ki nga xam ne moom mooy euh, euh, doomu jaxaw ah, di doomu Thiès daan ko mu mel ni ki nag loolu bi mu amee moo tax nag ñu ne faw ñu ñëw seesi ko waxtaan ak moom parce que bon bëre ba neex na riche na jël ba it gaaw na te rëy na mbër euh, félicitation waa merci beaucoup ah ginnaaw baatu onge bi laa mën a seetaan rajim ñu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ñu seetaan ci Dakar Actu mm-hmm. di ñaan samay ñaari waajur yal leen suñu borom yërëm leen te xaar leen ci àjjana firdaws ak mboolem jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. di nuyu képp koo xam ne daal sa allah question yi bi ci njëkk mooy Garga 2 ak Kalaf bii mooy sa ñaata Kalaf bi mooy sama deuxième Kalaf deuxième Kalaf mooy sama deuxième Kalaf duggoon naa ci yàlla def ma am ci neuf points mooy ma ñoom aadama Diouf. Mhm. Sentel Ndoof. Mhm. xam beneen pool bi yaakaar naa laay njombar la woon. Mhm. ah mbër laay ak euh, nu nga koy Valdo ñoo ma nekkoon beneen pool bi waaye claf bi àggul woon quoi. àggul woon waaw. mais jotoon ngaa bëri trois combats sa pool. trois combats waaw. amoon ci neuf points. Ah. amoon ci neuf points waaw. ok. Mm. ñu ñu proposé waat la CLAF encore une fois saison deux mille vingt quatre jàpp deux mille vingt cinq nga nangu. waaw parce que xam nga tamit boo xoolee li ma toog te bëreewu ma dafa xaw a bëri parce ah, naa presque waaw toogal naa cinq ans xam te ne te loolu pour nga dabe ko faa nga dugg ci lu mel ni claf xam nga mhm. pour mën a bëre trois combats parce que léegi saison bi pour nga am ci ñaari combats sax problème la mhm. bu yàlla dimbalee nga gis benn promotion moo xam ne mën nga dalee dimbale mën nga bëre trois combats ba quatre da nga dugg daal bu baax a baax. Mm-hmm. loolu bokk na ci li tax nga gën cee dugg. waaw loolu tax mu gën cee dugg quoi pour da ngay nekk ci entraînement yi normal xam nga. Mm-hmm. waaw nekk ci quoi. am compétition maanaam di entraîner mu leer na ne yow am nga contrat am nga ay adversaire yoo war a bëri. ay adversaire yoo xam nga loolu rek avantage la daal. Mm-hmm. mais bi nga ci duggee am nañu jàpp ne kii non pourquoi mu ci dugg waru ci yoon ci dugg parce que ñi ñu ay adversaire am wax jooju bi nga ko déggee yow mii athlète bi nu parce que ñoom tamit wax dëgg yàlla li ñuy wax rek mooy yéene rek lan am ci yow quoi pour nga avancer. waaye mm-hmm. euh, boo toogee xalaat ni ñoom it bu ñu toogee xalaat ni cinq ans bëree woo ko. Mm-hmm. te ñu ngi lay proposé ay adversaire ñu ngi lay adver ñu ngi lay proposé nanguñu laa jël nga dugg ci kalaaf may sa moroom yi sens maanaam daan ngay moroom ngeen quoi. Mm-hmm. da leen njëkk a bëre rek. nga bëre ñoom daal bu yàlla defee nag nga jël kalaaf bi dina la bulaat yeneen bunt. parce que am na sa morom yoo xam ne yéen a bëree ndoo ba léegi nii ñu ngi taxaw am problème adversaire yow bëri nga fi benn combat ci diggante bi su la yàlla dimbalee mën ngaa bëri waat deuxième combat di tax ñu bëri ñoom mm-hmm. waaw xam nga loolu rek avantage la quoi avantage la waaw ok euh, boo xam ne da nga ca fekk Doudou Sané Njaga Doole ak euh, Boy Jaxaw ñaar ñee moom ay luur lañu moom Njaga Doole Doudou moom ay luur lañu Boy Jaxaw sax mën nañ ne neexoo ngeen ci wàllu bind wala wàllu taay ak ñu mel ne ki noonu mais ñaar ñi lan. ah ñoom ay super lourd lan sax. Ah, ay super lourd parce que ñun ñëpp ay lourd lan waaye moom ñoom ay super lourd lan wax dëgg yàlla. ay champion lan man daal li may wax mooy. kalaaf mhm. points laa soxla néew sax neuf douze laa wax mooy jël kalaaf bi mooy sama objectif. di ñaan yàlla nag suñu borom suturaal ñu ci dafa ñu ci ndam ñoom ay champion lan ay ndaanaan lan kenn ku ne nag li nga mën. Mhm. man xam naa ko. Mhm. ay ndaanaan lan loolu nañ ko garder pour ñoom waaye man li nga xam ne moom laa gëm. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu fi yàlla bàyyi ñu fekk ko total ko dinaa leen daan benn par benn incha allah. Hmm? bu soobee yàlla. Doudou Sané mi ci des ak Ndiaga Dollé. waa ay champion lan ay ndaanaan lan man bu dee bëree ndoxtu bëre ñoom ñaan ñëpp kenn ëpp moo ko ci. bu hmm? dee doole fit jom ëppale woon ma ko kon lan moo ci des mooy nekk sa liggéey nekk ak sa Ikiri mooy jàmbaar académie bi yëpp. Hmm. Ah. di di wax ñu ñaanal ñu yàlla daal yàlla dafa ñu ci cat ak musiba. mu ñu yeggaleeg suñu sago incha allah. Mm-hmm. kon yow kon su ma déggee ni nga wax yow kon bi nga ciy dugg yow ñi ñiy am problème mu inquiétude euh, par rapport doole feeñ ceeg poids yeeg yooyu yow amoon boobu xalaat ko non non man leer ma leeru yàlla ni ñooñu mënuñu mopp doole wax ji moo bari rek xam nga parce que poids ak doole chaque jour man leen bokkul. Mm-hmm. xam nga boo xam rawatina bu fekkee ne yàlla daf laa dimbalee nga am benn rapidité boo xam te ni yow yaakaar nga ñoom mënuñu ko am. waaw parce que rapidité bi moom mu ñëw muus ak waane ba gën maa gaaw ci bëre. te da nga ne leer na yàlla ñaar ñooñu mënuñu la ëpp doole. mu njëkk doole doole dut sànni. waaw leer na ñoom mënuñu la ëpp doole boo boo amee rapidité boo am nga beneen beneen. du avantage bu bokkut ak parce que bëre rapidité moo koy def. gaawaay gaawaay moo koy def ko te doole euh, ëpp wuñ la ko te gënuñu laa gaaw. non gënuñu maa gaaw te ëpp ñu ma doole. Hmm? te buñ ci demee ba ñëw dinañ xam li ma leen wax bu baax a baax. Hmm. mën nañ ma gën a diis nag. waaye doole waaw ñu la ko doole ñu ñaar kenn ci ñoom mënu laa jàpp poñe la jaayal doole ci bëre daan la dem yëggi la. non loolu moom xalaatu ma ko ci àdduna loolu moom wax dëgg yàlla. Mhm. du ma toog sax di ko sóoraale. parce que bu dee jaay ma doole rek daan ma man mbër musuma def loolu sax boo xoolee. ci sa biir carrière déedéet ñi may bëreel ñëpp dañuy bëree ba keroog ñuy bàyyi waaye man defet yi ma am ak ak yi ma daan yëpp boo xoolee ko mbaay ñëpp da ngay bëre ba toqi ok mais mbër mënu laa maate. daal déedéet déedéet ñoom jàng xam xam ku nekk ak ni ngay bëree ak ñoom. xam ku nekk ni ngay poids lourd ak poids léger ni ngay war a bëree ñoom quoi. adversaire bi nga daan moom bër ki dem booy jaxaw mbër boo xam ne mën nañ ne série de victoire la nekkoon ba yàlla dogal dañu ne ko moom avant muy mu ñàkk ko mais mbër boo xam ne dóor mu daanu ñëpp bàkkee ko ko mu tasaare Thiès ñëw Ndakaaru tamit di fi def lu mel noonu bi ngeen di bëree coté xeex bi te moom itam nekkul nit ku néew doole quoi. non xam nga dafa am keroog dañoo waxtaan ak sama coach boo jaxaaw maa ngi koy suivre waaye xam naa ne moom suivre ma. Hmm. waaye su ma góosam dalee. Hmm. dañoo jàppante waaye mënul taxaw fee dóor ma góos. ci léewtoo bi mën na cee dóor. déedéet parce que xam naa ko jàngat naa bu baax. Hmm. maanaam wax ji ñoo fi ne man pour nga ma ci làmb sax dafay xaw a jafe parce que xam naa sama ni may taxawee ko ok parce que nekkuma nit koo xam ne aw ma garde wala affaire ba pare dama lay jàng parce que su fekkente nit ki dafa lu mu mënee. xeebal. maanaam man xam naa ne gauche mboobu déggal na ko bu baax xam naa ni ni mu xam naa ni mu koy dóoree. xam nga ni muy dóoree gauche bi. waaw laa léegi nag loolu laa éviter moo tax bi ñu bëree ma fatt ko moom mënul maa dóor mënul kii lay arrêt la doon def. su ma déclenché wu loon ba suba du du duñ laale. du ngeen laalante déedéet. yow ban tànk nga teg. gauche laay teg moom mu teg droite. di xeexee gauche. di xam nga loolu pour mu dóor mu day xaw a jafe. gauche lay dóor ne crochet long la fa fekk yow. fa fekk non non. jéem naa ko gëdd sax kenn xalaatul xalaatul noonu pour su ko defee ma mën koo remise waaye damaa gis ne dafa bañ quoi saa yu mu gëddee nanguwul sànni loxo yi mu xam ne moom it am na lu mu bëgg lu mu bëgg parce que moom li mu bëgg mooy jiwoo ak man na dafa loolu laa xalaat quoi. maanaam moom mu jiwoo ak mu wàcc mu xeex ak man remise quoi ñaar yooyu rek laa xalaat moo tax ma ne xaaral ma dox ci kawam dóor ko droite parce mu ngi doon xalaat ma déclenché gauche sama loxo bi nekk sama kanam. Mhm. léegi loxo bi ci ginnaaw laa indi moo tax bi mu koy dal moom da koo bett sa loxo bi mu koy da ko benn waaw bett waaw. kon yaa njëkk a dóor. maa ko njëkk a dóor enchaîné ko ak ay perkil léegi muy jéem a ah, mhm. ma fàq ko pour jéem a bëreeg moom. Mhm. ci laa jàpp euh, devanture ngemb bi. Mhm. bàyyi ko ba muy préparé pour kii pour jéem a jàpp ma fel loxo bi fàq ko. teg loxo bi ci loos bi mu tëdd. mel ni jël bi nga ko daan jël bu rëy la ah. waaw jël bu rëy la parce que ci bëre laa ko bëre ci ndoxtu bëre laa ko teg quoi. nga waaw parce que moom sentirul bi ma koy def action bi moom yëgu ko. waaye champion la quoi ba pare mbër bu sportif. pour fair euh, play la quoi parce que moom. waaw vraiment. wax dëgg yàlla bari na mbër yoo xam ne da leen di daan sax ñu nekk foofu di bañ. waaye moom saa yoo ko gisee day jóg ñëw ci yow xam nga félicité la. loolu ñu ngi ko ci encouragé bu baax di ko wax ah ni wax dëgg yàlla sportif la quoi. sportif noonu la war a mel mhm. parce que man dafa mel ni gis naa sax ci biir bi laam ji jeexee ñëw na ba ci yow suma jumu la. waaw ñëw na ba ci man ñun saafante ndeysaan nekk nit ku baax wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal rek li des ci carrière ko ci ay ndam. Mhm. su bëreew wax dëgg yàlla. Mhm. kon li des bi da bëgg mu am ci ay ndam baadu. waaw parce que champion la xam nga tey làmb moom mën a dèjà am na nu muy lay defee rek mën na décourager waaye tey bu ko yàlla dimbalee mu am ci benn ndam wala ñaari ndam mën na ko indiwaat quoi. Mhm. waaw parce que euh, tamit làmb la sport la quoi wax dëgg yàlla ñun ñëpp ay nawle lan te ku nekk yaay sa trésor morom waroo yéene sa nit sa morom safaan quoi wax dëgg yàlla ñeneen ñi tamit yéene ma leen safaan waaye nag. wax ne ku nekk da nga leen su ma sañoon ñoom ñëpp laay daan. incha allah ñoom ñëpp ngay daan incha allah. seen poule kan moo ciy favori. ah man de gars yi dégg naa duma ma favori nag. gars yi ngi wax loolu quoi. ñu ne déedéet. Hmm. waaye yàlla baax na nan ma ci kanam. <laughs> yow ñàkk jox guñ la ñàkk jox faveur daf laa neex. no non parce que xam naa ne am na ci ñoo xam ne xamuñu ma peut-être moo tax ñu jël faveur yi jox ko ñenn ñi. kuñ ko jox ci poul bi Doudou Sané wala Doudou Sané lañ ko jox. ñu ne duurooy favori waaw loolu la yow ànd nga ci loolu. det ñoom loolu mooy seen xalaat. waaye yow nangu nga yow. man amul problème xam nga lan laa gëm. Hmm. mooy bis bu ñu yàlla boolee ñu war a bëree. Hmm. incha allahu rabbi nan xam kan mooy favori ak ku dul favori mais dafa def daaw saison bu extraordinaire. non champion la ndaanaan la. dama lay wax man. waaye nag yaa ko njëkk ci bëre dóor bi moom. du saa ne su ma juumul ñaar combat la am est que waxuñu waaw xam naa 5 4 du ko pas du ko parce que boo xoolee léegi man maam maam 14 waaw man dañ ne waaw xam nga loolu ñuy wax favori parfois dañ koy. favori bi moom man su ma koy joxe laa koy jox moom ci poule bi. waaye yooyu yëpp amul solo xam nga li am solo mooy. waaw comme may naa leen loxo ñu war a ñëw bëre. Mhm. naa leen woon li ma leen mëgee ci bëre incha allah di leen wan li nga leen mage ci bëre. ci bëre incha allah. comme yaa leen may loxo. comme maa leen may loxo. comme parce que ñu bari dañ ne waroo ci woon dugg comme may naa leen loxo. bu arbitre bi soufflé dinaa leen woon lu ma leen magee ci bëre. ñoom ñaar ñëpp. incha allah Ndiaga Dolé moom min nga ko. waaw xam naa ko bu baax moom soreewu ngeen que Ndiaga yaakaar naa première mbër bi ko njëkk daan. maa ko yóbbu woon arène ba. muy kan muy Pape Cambrène. champion bu mag. Cambrène moo ko daan moo ko njëkk a daan Ibamar. dëgg xam nga. kon ñun parcelle xam nañ ko bu baax boo xoolee fi la jógee woon tamit franc tamit daanaat ko waaw kon bu ñëwee incha allah bu soobee yàlla troisième fois ma daanaan ko rek mu xool ñu xoolee leneen. da nga koo bëgg def yaa sami deux trois wala. non incha allah rabbi kay fa lay fi fi fi gars yi jaar fa lay jaar. xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax moom xamante nan. nga ko door. waaw. Hmm. te daa mel na ngaa tooy de. du ma ne <laughs> waaw tooy bi moom instant wër na àdduna ko mais lu koy faj ñu profité waale ci. xasum looro bi rek ak ak këlëg bu yëg bi saab. ak këlëg bi saab. waaw loolu daal mag ñi daan nañ ko fajawoo. waaw dëkk ba dañuy xas looro yi. kii di naan. na ci tooy quoi. mais nee nga yaay favori. ba astafurlaa nee nga ñen nit ñi neen mooy favori. man moom sama jàngat yow laa ko jox par rapport sa vécu fi nga jaar. Mm-hmm. waaye Doudou Sané bëree koy daan wala doolee koy daan njaga doole bëree koy daan wala doolee koy daan. waaw ñoom ñaar ñëpp xam nga tey <coughs> boo ñëwee di jaayante ak ñoom doole d'abord làmb technique la. technique mooy ah, waaw xam-xam ak ak mouvement. ak rapidité ak réflexe moo koy mooy ñooy bëre parce que xeex da ngay bëgg xeex bëgg a bëgg a moytu. loolu nag danga koy préparer kenn ku nekk ak ni ngay war a bëre moom. dañ koy tegal waaw. Hmm. ñoom ñaar ko ci war a dajale deuxième journée. wax dëgg yàlla xamaguma ko. xamagoo xamaguma ko. deuxième zone bi waxaguñ la kañ. kañ le 28 avril la. waaye xaw ma kan laa ciy bëreel. mais yow ku la ci gënal wala ku ñëw. xam nga làmb kalaaf nga ne ñoom ñaan yëpp ngay bëreel li naan julli reer la ak jul euh, reer julli. doog waaw du tee reer mucc. reer taxu koo mucc taxu koo mucc waaw. waaw nga reer. faaw nga reer lu ci mën a xew daal mooy na ñëw ak jaam ñu teel a xam kenn ku nekk ki ngay bëri nga xam ni ngay préparer sa adversaire mhm. waaw. Mhm. Euh, par rapport ak techniciens yi la yor ñoom dafa mel ni parce que tamit lu mën di wax mooy ay technicien ñoo la yor ndax Souka Lato ay Papa Sow xam nga bëri nañu macha allah ak ñeneen ñoo xam ne nii euh, euh, Ibou juuf ah ñoom ñëpp. Yaaram hmm? waaw. ah Père Ndiouga ñoom ñëpp. maa ngi waa Père Ndiouga sama père. ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi ci ginnaaw. te te xamuñu leen. waaw mu mel ni su ma la man li may jàngat mooy Garga 2 dañ ko dugal ci calaf bi parce que jàpp nañ ne vivacité am mu ngi fi bëri mu ngi fi euh, kiyam mu ngi fi ñee de donte ay super lourd lañu mais xëy na sa kon sa gaawaay est-ce que du kon ci la waa jàmbaar sukkandiku ak entraînement bi ñu la war a tegal wala plan boo xam ne moom lañ lay tegal pour ñaari super lourd yi waaw xam nga d'abord jàmbaar écurie bu mag la peut-être bi mu juddoo yàggul waaye ñi ci nekk mm-hmm. yàgg nañ ci làmb ay tet ñoo ci nekk ay borom bopp boo ko waxee mën nga làmb ñi ñu ko fi ëpp ay combat bëriwul te gis nga ko ni mu toll bëri naa façon loolu bu nekk mm-hmm. rëyul guddul mm-hmm. waaye façon mbër bu nekk bëri mm-hmm. naa ak moom kon léegi lool rek doy na exemple ñun nag làmb lañuy def mooy ñun am na kaar macha allah te te am na lu ñu xam ci bëre mën nañoo bëre te yaakaar naa ni bu dee entraînement den ko def gëj a bëre nag moo tax sax ñu xa ñu bari xaw a fàtte Garga boo xoolee loola gën a tax man ma dugg ci classe bi. pour nit ku fàttalikuwaat fàttalikuwaat ma ak waaw ak façon bëre bi Garga di bëre. <laughs> léegi nag ci kàttanu yàlla boo ko wanee ci classe bi ba yàlla def nga jël ko léegi nag xanaa nag. gars yi nañ ñëw ñu bëre su boobaa incha allah. ah kalaaf bi kay boo waaye kalaaf bi nag boo jë boo sa poule bu dee di nga ko gañee bu dee yaa ko gañee xaw ma nag ndax ña nga ko seqal du ñeexu ñebe ñaar ña des euh, ki nga daan sax du ñeexu ñebe xëy na bésu am du bésu ñàkk mais beneen poule ba parce que final ba foofu lay dooni te foofa gis. bala maa waxi final bi damay wax ci. ñaar ñi ma dese li ma rek mooy bi may dugg ci claf bi am na wax naa ko ci commencement bi nee naa la objectif bi mooy jël claf bi mooy douze points yaa ngay sóoraale sa final. waaw. parce que tey ñee di bëree poule A bi ay champion fa nekk ay ndaanaan ah, ay ay bëreekat léegi nag li ci war mooy li ci war mooy yow xamal si yow sa bopp xam yow yaay kan même bu la nit ñi xamul hmm. yow xamal sa bopp caatu Yoff de gis nga na mu def kera non champion la ndaanaan la yàgg naa ko suivre xam naa ndaanaan la xam nga mbër bu yaru la mbër bu joxe cër la waaye nag comme àggaguñ ci loolu bàyyi ma oke ko foofu rek bon egg ci. caatu yaraax it gis nga nam def na mu ñëwee keroog. waaw ah, champion la ndaanaan la ñoom ñëpp xam naa leen. gàmmu Gueye. te Ndiaye ak gàmmu dañuy bëgg a dellusiwaat deuxième journée bi. Ndiaye Tine aussi xam nga xam nga maam li maam claf bi dina. bu xatt la. Ah, bu neex la xam nga lam li ma wax rek lam moom ku juumul loo daanu. Mhm. moom xay na yaakaaroon na ni. Mhm. moom man caatu yoof. caatu ba dafa juum ci biir bëre. ah daa juum Ndiaye. waaw dafa juum ci biir bëre. Ndiaye fu mu juumee non parce que moom dafa jàpp caatu eh, yoof rek taxaw. Ah, daa jàpp ba pare moom dafa xaw na njool quoi am na lu taa yoo xam ne boo ko yoree boo dëbbee sol da nga a sëgg tuuti wàcc bu defee am na yu bëri yoo xam ne lu hmm, taxaw ba pare taxaw siggi xam naa peut être coup bi xaw a wàññi quoi moo tax mu doon jéem a récupérer léegi nag. Mhm. caatu yar caatu yoof xam na loolu moo tax moo tax mu exploité lool oh. kott ko daw tegal ko 16. bëri na bëri bu rëy wax dëgg waaw kon ci biir bëre la Caatu Yoff daane Njaay. Caatu Yoff mbër mu mën a bëre la xam nga gars yi parfois dañuy fàtte bëre bi ba topp xeex bi mi lay topp ba nit ñi dañoo fàtte mën a bëre eh, xam naa ne mbër mu mën a bëre la xam nga fi mu dëkk la quoi nitul ndox la. Kër Père Bekay nee na nañ ko jox du ñuy la war a bëreel. wax na dëgg de. na dëgg ah. wax na dëgg de xam nga làmb moom parfois li may wax rek làmb ji mooy doonte bi dafa xaw a bëri quoi te promoteur yi aussi am na am na fi ay combat yoo xam ne ni yàlla xam ne bu buñ ko tëggoon làmb dina dundaat bu baax a baax xoola jamonoy Balla Gaye Modou Lo ah Issa Pouye Tapha Tine mii ah la de guerre ñoom jos bi ñu ciy toll ah bàcc seeraas fii <laughs> ah làmb ji du neex maanaam làmb ji foofu la war a tollaat par ñaata par exemple xoolal ci suñ catégorie am na lu mat huit personnes yoo xam ne wala ñu ngi fii nekk tolloo su bokk génération waaye kenn nangu sa bëree sa morom Diène Kairé waaw Jackson ah mun ngay woowetee góor a soog a ngi fi mbay guy gi. Mhm. Ah? waaw booy bi dëkk euh, Moussa Ndoye mu ngi fi. ah yaraax yaraax nga gis fi nu ngi koy wax de ki mujjee bëre ak Jackson keroog. Euh, Kële Soq euh, Soq. ah mu ngi fi. waaw mbër yi ne fi nekk fi ay ndaanaan. ah mhm. nga ñëw dugg Pikine xool booy bi dëkk Mbaaw. waaw oh. maanaam maanaam làmb maanaam làmb dafa tool boo xam ne faaw ñu boole booy ñu bëre. wallaay. yaa ngi wax nga daam ay daam seen fii ah ñaar bu ndaw daam seen làmb ju neex la. Hmm? waaw làmb ju neex la. ñaar ñëpp tey ay génération la bu bu fekkee dafa xool nag fi mu jógee. mën naa bañ a bëreeg daam seen. waaye ci yoonu làmb bu ko daam seen rawul moom rawul daam seen. te da gis ne dañu war a jaxasoo bëri dañu a jaxasoo bëri ay morom lan ay naataango lan maanaam catégorie boobu même buñ bëreewul buñ bëree woon ren mhm. ñaari at dañuy bëriwaat seen biir parce que ñoo fi nekk parce que Pape Ndoye boobu wala Zambala yaa leen tudd ak ñeneen ay daam seen ay booy gëj booy yu bëri gëj nañoo bëri ah nga lu bëri laa la lu fi jóg bëri na te nekk ay mbër tey kii perte na contre euh, mbay guy gi nu mu tudd Mm, euh, Marley. Marley waaye da dafa bokk ci course bi ci la bokk waaw. parce que boo xoolee li mu def avant loolu. avant avant war na war na mën a war na mën a gars yi war nañ ko mën a jox loxo mu bëre. mu ñëwaat. waaw ah, làmb faaw ñu bëre suñu biir mënante mayante xaalis. Hmm. làmb ji am engouement riir sponsor yi ñëw. ku mel ni ah. armée bu benn bras. armée aussi. waaw. armée man doon naa dégg ay combat maanaam affaire yi faaw ñu faaw ñu bëre seen biir. général bu Fass. général Malika. général ah. Malika tamit. tey jii ah, général bu fas boobu ñaata at a ngi nii daanuwul. te boo yaa ngi fi bëre bërewu ñoo moom. Mhm. bari mhm. ba ci kii yi nga xam ne maa ngi dégg kii bu fas mm, kan la ci. Correas. Coriace. waaw dafa Serigne Ndiaye war a bëri a bëri waat. na mën a bëri mais kooku nag seen egg seen poof lañ koy doxalee eh, combat de si góor a soog. dégg naa combat gaa ngi koy dox yàlla xëy na promoteur dañoo jubóogul waaye am naa yaakaar ni dina taxaw quoi. a moo góor a wala moo général Malika boobu ba tey boobu tam combat ñaar ñëpp ay naataangu la waaye moo góor a comme moom la nit ñi bëgg ba sori nañ ci. Mhm. yàlla na ko yàlla sottal. gis nga ne moom góor a mën na ci moom lu bëri. góor a amul ku mënul ci moom dara parce que géant la te xale la ñeme na am na co ñeme na coono. Mhm. mboor mboor yi nañ ko jàppale rek. Hmm. waaw champion la de. c'est nag gars yi parfois am na am na nooy juumee ci bëre rek nit ñi dañuy yaakaar ni. mooy loolu. xoolal fils de balle tey ak. ak Lac tey boo ko jëloon moo kii combat la moo Quench. lamb la wax nga dëgg de. maam lamb yi neex na de. c'est nekk man man moom ay mbiram dama cee yëm Coense moom ay mbiram saal. Coense moom lan la Coense lu xew lu ma koy conseil mooy. ci bëre la toll. waaw mu taamu na jël ay moromam bëre. yàgg yàgg dina ñëw parce que mënoo boo daanee say morom bu jeexee rek di nga bëre sa say mag. Coense lim daan daa bëri kat. waaw ah, daan na lu bare waaye nag tamit am na ci prix yoo xam ne bu la ko fayee mu leer na ne arrangé na bul fi nekk di xëcc lu gën a bëri loolu nag ku nekk nag yaa xam sa bopp looy li ngay sa bopp jinax waaye mbër la ko mbër yëpp dañoo war a bëre seen biir ñoom ñëpp nag man mhm. waxuma kii dafa war a bëre kii nan jaxasoo seen biir ñu bëree ñu xool yow da wane nga la bon exemple moom no man ñaar fa nga jóge ñëw dugg ci kalaaf boom ak ñi nga ko bokkal bi may bi may ñaar yoon may def lu mel noonu xaw ma ñett yoon bi ma jógee ci assurance mhm. damaa ñëw may loxo Valdo mhm. may ko jógee fa dem bëree jeeg Tyson 2 yàlla dogal li mu dogal ba dem jëli Maama Lamine yàlla dogalu ko bi ma jógee ci maamu Lamine xoolal fa ma demaat ambulance bu Thiès. waaw làmb day toll foo xam te ni maanaam faaw. léegi nag am na fooy toll du yow yaay wax ni du ma bëre ñii nit ñi ñooy wax amateur ñoo ñooy wax ni diw ak diw combat la. Mhm. ok tey boo génnee fii. loo mhm. taxaw ni wax kenn di nga xam ni promoteur na ni ah jot na nag na ko diw may sens wala di nga gis grand boo xam te ni dañuy xaaral ma may booy bi sens. waaw ah, parce que wane na am na lu mu wane. voilà na lu mu wane daal. parce que làmb lool rek a fi nekk ah. Mm. nan bëre suñu biir rek làmb ji neex. faaw ñu bëre seen biir waaw loolu rek. faaw ngeen ñu ñu xaar mm. loolu kese moo fi nekk. Mm-hmm. waaw. Zarko gune yi mu ngi la moom de mu ngi wàññi moom. ah Zarko daanaan bàyyi xel bu baax parce que man xam mm-hmm. naa ko bu baax. xam nga ko. bi may jàng bëri laa ko xam ba léegi ñoo nekkoon doon ca dóor dóoraat gu njëkk ga hmm? waaw li may wax nii li may wax moom xam na ko man xam naa ko Zarko premier combat mbapat waaw bokk naa ci ñu ko takkal ngeem terrain gaal gi la ko bëre su boobu dañoo moo ko euh, mobile ñu jox mobile 1 victoire bi. yaa ko takkal ngeem bés boobu yaa ko takkal ngeem yaa gën boo boo ko bëree na maag bàcc seeraas numéro 2 ñu koy wax paa bi maa ngi koy nuyu bu baax. Mm-hmm. dëgg Grand Yoff moom a bëree grand combat bi sax àggul. su mm-hmm. boobu damaa daan kii bi après laa mujj toj quoi. Mm-hmm. waaye dafa bëre de dafa mën a bëre de te daa jaar ci mbapat. kon booy su ma la déggee dañ koo xamul. xamuñu ko la dañuy bëri moom ñu ci bëri dañoo jàpp ne xam nga comme man daf may fàttali Zos bu njëkk ba rek da ngay ñëw gis Zos yaakaar ni mënul bëre. parce que soo bi muy indi affaire nga jàpp nga yaakaar ni kii nga yaakaar la fekk ndoxtu bëre ci moom la dëppee. te Zarko daa mën a bëre de man seetaan naa ko moo ko kii Adrien Senghor fii moo ko l'an 2000 ca l'an 2000. ba muy të ba muy të bu metti xam nga nga seetaan ko fi tournoi lu Ndeye Ndiaye Tyson ba fii Iba Mar. Mhm. jour boobu su ma juumul est que du kii moo ko daan am na benn mbër bu dekkoon Pikine de yaakaar naa moo ko daan. mooy mbapat bi booy ñaa jëloon. waaw bi muy daanu demi final. Mhm. su ma juumul booy mbër bu nekkoon écurie Bathie Seras moo ko daanoon. Mhm. parce que ñoom ñaar moo après kii booy ñaa ak kooku ñoo daje woon. ñoo final ñoo final daa mën a bëre de. jour boobu yaakaar naa ci la daan guy gi mbapat boobu. daa mën a bëre de si door li may wax door dooraat boobu mbëri boobu ci la ñoom càmp nekkoon ñoom Alizé. Alizé ah kii mii mii àndal say ñoom Jibi Samb mii. Jibi Samb waaw ah, boobu sos boobu sos boobu sos ñu ngi soog ci classe ba général général boobu sax ñëwagul. boobu ñëwagul door dooraat boobu xewagul noonu quoi. waaye li ma la wax ni jamono jooju door dooraat ah, mbër amoon na xeetu mbëri séeréer yoo xam te ni ñu mën a bëre sax. Alizé ci la ne woon. Alizé ci ñun la mu nekk ba ni mu bàyyee làmb càmp oh. maa ngi koy nuyu bu baax borom kii ni koy wax sax seen dëkk bi Palmarin. Palmarin waaw koy nuyu bu baax. kon kay yow Zarko li mu nekk nii lu mu jàng la. non daa mën a bëre de li may nii te boobu dootoraat la fa nekkoon ci ay champion ay ñoom mbës. mbës Pape Cambrène Pape Cambrène. waaye të mën a bëre trop Garga Mbossé. Hmm. ah gars yi ba boobu dootoraat dafa nekkoon ci ay mbër mooy loolu quoi maa ngi nuyu staff dootoraat yëpp ñoom Père Gora ñoom Cheikh Thiam. ñoom bëgg fàllu xam nga boobu ñun ñoo ñu yoroon. xam nga ma tax làmb daal bu ci mbër boo ci tollee rek tarbiyu ko li ci des nag yàlla mooy dogal bi sa wërsëg nekkee rek di nga ci jot. kon su ma la déggee moom daa tarbiyu ba toll ci tar yi. waaw tarbiyu na bu baax bi mu jógee door dooraa ci la dem Rock Énergie xam nga ñu bari nag Rock Énergie lan ko xam ah. waaye sos bi ñu bëreeg bàcc seras bu bu njëkk ba. waaw ci la Zarko yaakaar naa njëkkat sol blouson ñëw stade. ok. xam nga kon yàgg na ci làmb quoi boobu jib saam bi moo ko fi ok mu jaaree noonu. ba pare da ngay xam nga Zarko ñu ko wër da yaakaar boo leen gisee ñu dox nii da ngay yaakaar xamuñu làmb waaye Djiby Samb. nii Djiby Samb moomu dégg naa mbër la moom sax ñoo ay Talla Gaynde. Talla waaw. waaw ah, ñoom ay lan mbër bu ko ci bëgg daan daal di nga ko respecté jox ko cër. booy waaw jàpp jàpp ni mbër la comme mbër yëpp. bu mhm. defee nag nga mën a bëree ak moom quoi. et dama seetlu ci moom leen naa bu njëkkoon combat bi jëkk yi da daan xare jàppante xeex xeex xeex mais léegi dama gis ne. Zarko day bëri ci. waaw parce xam na ni làmm léegi. ci ay làmb ci ndoxtu la. ñëw def affaire yee ñu dóor la fii gaañante amul njëriñ li am solo mooy sport ngay def sport de combat ngay def bu fekkente ne xeex bi moo gën a gën a jublo xeexal waaye bu mu yàgg demal nga bëre ji parce que kenn du laaj ko dóor ku daan lañ laaj comprendre nga hmm. loolu la xam moo tax bu ñëwee dina soo jaay làmb ji waaye bu xasee ba dugg si ci géew bi hmm. beneen Zarko ngay gis hmm. am na ci loo xam te ni man tey li mu bëree sax man dama dama dama ko dama ko xaw a xeeb quoi parce que man yaakaaroon na ne waroon na gën a am lu mu gën a ci combat bi waaw waaw bu ñaabu ndaw parce que man waroon na appliquer ko li ko Zarko may noonu da ko waroon exploiter hmm, occasion bi waru ko rëcc bu koy Zarko di daane pas nii la ko waroon daane combat bu métti la Zarko waroon bëre balaa koo daan balaa mu koo bu defee dinañ ni ah Zarko daan na ko kat waaye kii démérité wul nangam nangam. waaye bu soo ko lu muy bëree. non man su ma ko indiwoon xam nga tey communication bi ñëpp ni Niang bu Ndaw dafa ñemee Zarko waaye bu ma ko indiwoon dama naan ko ragal wala ni Zarko dama laa ragal comme jot nga say loxo jot na. Mm-hmm. ngay reculer bu Zarko forcé nga dóor ko direct gauche. force dina bëre bëre boo xam te ni baaxul su ma la jàpp su ma ko su ma ko dóoree direct gauche bu dalee bu Zarko siggee su ma la songee dama lay daan parce que xale la jot na loxo jot na macha allah. bu ko pakatee arène nationale suuf si dafa diis. Mm-hmm. pakatee ak moom ñu bëree force dañuy am leen bëgg. même bi ko Zarko di sol bu fekkonte ni suivre na ndoxtu bëre bi war na ci moom ci moom. war waroon naa mën a dëbb sol Zarko ëñ ko. Zarko forcé mu delloo ko. ok contre Keleku. waaw parce que Zarko day bëri loolu day ñëw forcé bëgg a jeexal làmb te làmb kenn ko jeexal ci une minute li may wax chaque jour rek làmb moom nekk defal li nga war a def ba keroog. muy jeex dama gis bi ñu dóorante foofu xale bi ba xale bi Zarko dafa mel ni lu koy song ñaam tamit daa mel luy song mais Zarko moo yeggale. non ñaa da doon song Zarko di song léegi bi Zarko di ñëw ñaam ndaw daje naa moom loxo ma ngi ci biir léegi nag ci loxo bu nekkoon ci biir da koo doon dugal ci poqtaan comme moo nekk xale. Mhm. te naa ne ci liñ xalaat moo war ëpp doole. waaw ci liñ xalaat. ci leen xalaat. waaw xam nga leen xalaat li war li am na li am du benn. Mhm. leen xalaat léegi da koy dëbb sol. Mhm. iñ ko bu defee Zarko day taxaw na ko parce que Zarko boo xool mu ngi jël bopp bi teg ko fii dëbb na ko sol fii bu génn damay génn bopp bi rek Zarko day forcé nga def li nga bëgg def waaye loolu peut-être dañ koy liggéey préparé ko jox ko xam mooy li ma wax keroog ci sa benn site internet bi man ko bu fekkente ni Zarko dafa pàdd Niang bu Ndaw mu daanu mm-hmm. dama naan Zarko kii Niang bu Ndaw cuune la parce que warul nangu <coughs> pàdd boobu parce que mënu ko def ñaari nit nga koy gis nga xam ne kii bërëm la mu ñëw la ci loolu moom ànduma ci te part boobu daa mel da lay calculer tamit say pas. lay calculer waaye tey bu fekkoon dañ sama classe ki lay bëree dañ koy pièce ndax dañ ko ci dañ mu ñëw mu dugal ci mu jéem. part boobu mën nga ko ci suruxal maanaam. waaw si parce que mën naa ko cee lal quoi mu ñëw pour part su dawee ba part parce que nit bu lay part normalement nga nekk bërekat da ko war a sentir su la part nga taf ko yóoru ko plaqué ko. dama gis Mamady Ndiaye di def loolu ci lu boo ko jéemee part. Mamadi le grand champion. Eh, moom ci bëre ci moom la dëppee. Eh. Mamadi ak a nuyu bu baax. Mamadi Ndiaye ku mën a bëri. Eh, làmb simple moo ci dàq bëre soo bëggee dëgg-dëgg. Ah. man man moom laa nangul. yow jàpp ne simple Mamadi ci numéro un. mooy numéro un bokkuñu. zar Mamadi Ndiaye bu loo jël see bëre soo ko jël see mu bëre bu la wëree ndomba bëre boo ko wëree ndomba mu bëre. za Mamadi Ndiaye day yenu day def lépp Mamadi Ndiaye wax ma lu mu mënul ci bëre waaw kon de na. lépp la mën lépp boo ko jëlee tànk mu bëre bu la jël see nga bëre soo ko wëree ndomb mu bëre bu la wëree ndomb bu bëre. yéen a mbër sax di dox ak moom. waaw kooku dégg la ma la bëre kay ci moom la dëppee laa dañ koy ñaanal rek tamit te gars jël ko tamit quoi dafa war a am combat ñu may ko sens parce que champion yi mel noonu. waaye yow macha allah yi ni def bëre simple. wallaay keroog ko euh, fii Adrien Senghor 31 décembre. dagul ma na ko gars yi jël. booy fay la daan demi ñëpp ay champion lan comme li ma war a may loxo ñu mu mu bëre parce que noon bu faatee am nay combat bëre dóor. am na combat dóor waaw am na combat bëre dóor est ce que daanul. daañu la waaw waaw combat yi kalaaf la woon gaston mu tëggoon daa war a ñëwaat maanaam a ñëwaat jox loxo daal dañ ko war a jox loxo quoi am solo mais Garga uh-huh. kontaan naa man maa ngi lay fay bu baax ka ah di sant mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ma jàppale mm-hmm. ku ci mel ni sam papa maam père ba ñu ngi koy sant bu baax baax ah di sant Mansour Ba doomam di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm borom maa di jàmbaar di Sénégal ah li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal di sant suñu yaay maire Dramé xam nga di sant sama patron Papa Sow wax dëgg yàlla gis naa taxawaayam gis naa li muy def su ma toogee sax mhm. wax dëgg yàlla mu woo ma la ah. xool ci lan laa nekk parce que mhm. moom pour moom waruma ah, toog benn fan yu ma war a entraîné xam nga maa ngi sant tamit Modou Xarañ Lo parce que def naa temps bu yàgg biir këram hmm, di préparé sama combat bi mi muy dem umra sax këram la ma bàyyi am na ci yow confiance quoi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm ak soxnaam mm-hmm. ah Adja ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax mm-hmm. ah di nuyu xarit bi nga xam ne moo nekk kër ga nga xam ne moo ñu doon toppatoo ci lekk yeeg yëpp ñu ngi koy sant bu baax ah mm-hmm. Tepa ñoom ñëpp maa ngi leen sant di sant tamit waa hôtel bi quoi waa hôtel euh, see salim bi yëpp maa ngi leen di sant di sant sama grand Thierno Bokum ak euh, personnel bi fa nekk yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Mhm. ko ami Kole Ba ñu ngi sant bu baax frère Amadou Bala ñu ngi leen di sant gis nañ taxawaay bi ak jàppale bi yëpp. Mhm. di sant ministre de la jeunesse Pape gis nañ taxawaay bi ak jàppale bi xam nga. Mhm. Ah, Abdou Aziz depuis France tamit maa ngi koy sant bu baax gis naa jàppale bi Fallou Gueye Allemagne xam nga. waa diaspora bi fépp sama supporter nekk sant naa la gërëm naa la gis naa seen taxawaay gis naa jàppale bi. sant disco depuis États-Unis moom it sama waay la fi la doon nekk maak ngi ñoom xam nga. ñoom Ibou Ndoye xam nga staff bi Omar mm-hmm. Kébé. Mm-hmm. Youssou Mbaye aw ma fayam moom dama koy sant rek di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm sooy bu. Mm-hmm. ah di nuyu waa parcelle fii ma dëkk. Cité Fadia gi nga xam ne fi nga ma fekk waa Ndande Fall maa ngi nuyu ñëpp. Kër Daagoe Thiar Culoor xam nga maa ngi leen di sant bu baax di sant sama benn grand nag góor gi Senghor boroom Joal gis naa taxawaay gis naa jàppale waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax. la ñaanal yàlla na suñu borom defal jàmm yàgg sa doomu ndey Ablaye di nuy waa Kër Omar waa Passy waa sookoon xam nga képp koo xam ne daal yaa ngi may jàppale yu ma yëg ak yu ma yëgul sant naa la gërëm naa la di nuyu Aline Sow bu baax gis naa jàppale bi gis naa taxawaay bi bu baax baax maa ngi koy sant bu baax di sant tamit sama soxna. sama bàjjan maam say sekk maa ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla mooy fi nga ma fekk nii maa ngi koy ñaanal yàlla na ko fan fanu gudd sama soxna ak sama goro yi ah bu gis naa jàppale bi xam nga Kolle Mbaye maa ngi sant tamit bu baax a baax di sant Arma Ndiaye sama goro ah sama batteur sama batteur Lamine Naar Gawlo maa ngi koy sant bu baax moom it wax dëgg yàlla dafay xër dafa may ñaanal fu mu toll hmm. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ak soxnaam xam nga dëgg yàlla kontaan naa képp koo xam ne daal jàppale nga ma maa ngi lay sant bu baax. di nuyu tamit maanaam Gomis borom école la Sagesse ah. Tamsir Dieng maa ngi lay sant di sant sama benn grand ah mag Max ba depuis Italie. parce que dafa bàyyi teem yëpp ñëw. Cartouche maa ngi koy nuyu xam nga. Cartouche ma ah sant naa ñëpp. ah Xaadim Seck sama frère yi nekk kanadaa yëpp maa ngi leen di sant bu baax baax Xaadim Diouf ah Ousseynou Assane Maxa ah. Sidi depuis Espagne maa ngi leen sant quoi képp koo xam ne daal yaa ngi jàppale Garga 2 Garga 2 sant na la gërëm naa la di sant Mbawar Mbawar yëpp nag. di ñaanal Ousseynou Laay di wax ni. appel bi incha allah samedi la ak dimanche samedi incha yëpp dinañ fa teew borom la 17 février euh, février incha allah yàlla na ci yàlla def tawféex ak taysiir ah. amiin waay kontaan naa bu baax a baax. jërëjëf sëñ Mbaye de keral lim la wax rëy na. sëñ Mbaye yooyu ko sama ah, sama sëñ Mbaye ah, de ah, wax sama yàlla defal jàmm ak sutura parce que moom ku baax la di ñaanal sam papa Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla may wér ah di ñaanal makan tamit li nga xam ne ci la nekk suñu borom defal ko ci jàmm sponsor yi ñëw jàppale ko bu baax a baax mm-hmm. képp yaa ngi jàppale Garga mm-hmm. sant na la gërëm na la di sant waa Serif Ka waa Adulaay am nga Palmeew Njaxeer mm-hmm. bàyyi ma fenn di sant sama frère sama mag yi nga xam ne ñoo doon jàpp ci combat yi ñoom Mout Gueye ñoom Maam Samba ak sama doom bàyyee nag sant naa ñëpp ñoom Mor Diarra ñoom Ibra Diouk maam seex ah bàyyi ma kenn daal seex naar maa ngi koy sant sama banquier bi ma suma soxlaa xaalis rek moom laay woo eh, moom mu ngi nekk fii Derkele maa ngi sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm a moom amuñu seen fay macha allah émission yi ñu ngi koy suivre na naas na quoi yàlla na leen suñu borom defal jàmm ah, ci kaw ci kanam Zallo waaw champion bu mag boobu ñu ngi koy bu baax ndaanaan la parce képp kuy jàng bëre rek boo xoolee comme ni mu meloon. wallaay dëgg la rëyul woon waaye ndoxtu mbër mbër bu mu son jàmm moo tax bëre daal ci ndoxtu lay dox. da yal na ko yàlla defal jàmm. amiin waay moo tax cat cat du wees daal. déedéet waaw yal na ko suñu borom may defal jàmm. ak fan bu baax eh, ne dama koy gis yenn saa yi baax la wax dëgg yàlla. bu baax la ku oyof la wax dëgg yàlla. jërëjëf kon naan baax merci. am na solo kon dina yaakaar naa ne mbokk internet yi wala suñ mbokku téléspectateur u Dakaractu yi kontaane nañ leen mu mel ni ki nag tey Garga 2 lañ leen seet si loon ak waa jàmbaar ah, du mën a ñàkk parce que it nag wala fa koy wax ku bindoon itam faw ñu tëggale ñaari boor Karim moom moo bëri bëri ki démb ci kalaaf bi daan jël bu rëy a rëy rëy ndax na mu daane du jëllub cuune te du jëllub ngaaka kon ñu ngi koy félicité ah di wax nag li ci kanam incha allahu rabbi raw li bët poul ba moom xam naa ne yombul nañ yónnee yàgg ba xam fu ñuy mujjee di nuyu waa Gaston production ñi ko të tëggoon rawatina suñu père gas di ko ñaanal yàlla wér di nuyu Makan ak ñoom Abdoulaye Ndiaye ñëpp mais Karim di la jaajëfal yow mi ne woon ci euh, film bi ak montage bi di la wax ne la yàlla sa jaamu yàgg yaa daa mel ni dëkkandoo euh, sa waay garga dégg nga de yéen a bokk faja ah, <laughs> kon noonu la demee kon tey waa faja waa faja ñëw faja kon ba beneen yoon incha allahu rabbi salari jiin bismillaay ma dee ci door maam góor njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow